yal nañu yàlla may suñu mujj kaddu nekk laa ilaha illallah yal nañu yàlla may suñuy mujj kaddu nekk muhammadun rasulullah ne yàlla ne dana saxalal ñi gëm yàlla bil qawli saabit mooy ban laa ilaha illallah yàlla ne danaa ko may sama jaam yi ci biir bàmmeel ak ci àdduna ni ñu ko dundee ci àdduna lañ koy dundee ci bàmmeel yàlla nañ ko yàlla may allahu akbar mbokk yi laa ilaha illa allah hiya al urwatu al wusqa allati lan fisaama laha mooy buum bu dëgër bi dul ferenciku mooy laa ilaha illa allah jamais du ferenciku jàpp ci nu ko nit ñi tuddee jàppal yow waaye fexeel ba baat boobu nga jéem a jàng lan lay tekki lan la laa ilaha illa allah di tekki soxlawul nga di ko sikkar di ko way di tëb di ko fecc déedéet laa ilaha illa ëpp lañu koy feccal waaye jëfee ko lañ soxla ngir nga jëfee baat bi xam lan la baat bi tekki soo ko jëfee ci kaw suuf wallahi di nga yëg ni borom personnalité la te keneen ki nekk ci leneen dana la ñee doonte mënta ak si ci yow coow lee bëri mais gars yi xam nañ de dofu dofu ñu de xam nañ fi mbir yi ne de dofu ñu jinne jàpp leen wax jooju nag nekk bil qawli saabit ci xayaatu dunia da koy dund nee na yemu ca de wa fil axira ak al'axira soo duggee bàmmeel su malaaka yi nee tëll xool la seen xol sedd danañ la laaj comme ni ñuy laajee nit ñi waaye borom bi ne maay dëgëral sa kàddu doo tiit doo raf doo jaaxle suñ la nee man rabbuka nga ne allahu rabbi yàlla mooy sama borom yàlla nañ ko yàlla defal maa diinuka islaamu diini yàlla nañ ko yàlla defal wa ma kitabuka qur'an kitaabi maada kunta taqul fi hada rajul ma huwa rasulullah allahu akbar kàddu googu ku dugg bàmmeel te dundoo woon laa ilaha illallah doo tontu bu yaboo nag na mag ñépp dajaloo def gaal yeewu la ci yóbbu àjjan ndax danañ la mën a yóbbu mu munuñ ko ndax kenn ku nekk ci ñun am nga lu la doy kullu nafsin bi ma kasabat rahina yàlla nee na kenn ku nekk la nga def yaa koy garanti kullu nafsin bi ma kasabat rahina والله كل نفس بما كسبت رهينة لو دف يا كوي غارانتي كين دو نيوني ديو لاكو ديفلو ديو ماكو ديفلو امول سي باميل ديو لا توبون امول سي باميل ليغا ديف نان لاي فاي يا كو رندي سا لوخو لاي ناتش كون نك لولو دي لا اله الا الله في نكوي دوند سي ادنا nga deewale ko yalla may la texe yalla nagn ko yalla defal